Sene Production gars yi nuyu naa leen jaar naa leen wéy leen di abonné activé cloche bi ngir bépp vidéo bu ñu dugal ngeen daal di bokk si ñu koy njëkk jot bon gars yi cette fois ci si euh, série Babel li ñu ñëwaat ndax soo xoolee ki nga xamante ne moom moo di Hawa lu muy dund moom moo di violation conjugale violence conjugale moom la nekk di dund de ndax jëkkëram da koy teg ay pression jëkkëram da koy dóor di ko saaga di ko torturer te moom du am possibilité li nga xamante ne moom moo di fayu comme donc képp ku contre li nga xamante moo di violation conjugale maa ngi lay ñaan nga def si commentaire yi ay kër yu bëri pour wane que ni yaa ngi contribuer ci à ce ñu arrêté violation fet aux femmes ndax baaxul jaaduwul te jaarul yoon aussi tamit man mënu ma comprendre tey nit ki nga takk ko ci farata ak sunna mu am ndey am baay comme ni nga amee ndey am baay nga jëlee ko sa kër nga jëlee ko ci këram. yóbbu ko sa biir kër defoo ko lenn lu di ko toroxal di ko maltraité man xaw ma yan genre góor ñoo ñàkkee bopp ni euh, ki nga xamante ne moom moo di Cheikh parce que moom tey nga jël sa jabar di ko dóor di ko torturer juste ngir sa plaisir juste ndax dafa def benn erreur bu ndaw jigéen tey bu defee benn erreur bu ndaw woo ko ba muy ñëw nga taaj ko wax ko ni lii ak lii ak lii bu ko defati. vous voyez waaye lu mu def nga dóor lu mu def nga dóor yi nga jigéen bu amoon doole kon benn góor du ko yàpp jigéen bu amoon doole benn góor bu ko yàpp góor yi dañoo ñàkk fulla ñàkk seen jëm bopp ana ana góor ak dóor jabaram ana góor ak dóor jabaram non yeewu leen ngeen tamit man daal jaaxle naa daal aboneel activé cloche